Alassane Ba maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. Alassane Ba nga nekk secretaire général bu syndicat unique des travailleurs de l'énergie récemment ngeen def communiqué di ñaawlu kàddu yoo xam ne ministre porte-parole du gouvernement yëkkati na ko est-ce que mën nga ñëwaat ak ñun ci cas boobule. waaw jërëjëf bu ngeen ñu mayee occasion bi ñu mën a wax ak euh, sénégalais yi. waaw à travers suñu déclaration bu ñuy def après que ministre bu mu génnee wax mhm. ñun leen rek la ñuy bëgg ne bëgguñu ñu créer polémique ñun leen rek dañ ko defee pour indi leeral parce que tey fekkoon ñu bëri yàgg nañ di génn di wax si Senelec ñun duñ leen tontu parce que xamuñu Senelec nan lay fonctionner mais su fekkee dafa génne si mooy ku yoro baatu nguur yi kooku wax dëgg yàlla dafa am importance lool. moo tax ñu ne ministre nu waxee du noonu vraiment jox nañ ko cër bu baax a baax mais am na leen day créer polémique c'est gis ngeen sax Sénélec depuis barki démb polémique la créer biir Sénélec se yaakaar naa diir am na kenn dégul waa Sénélec mooy surtout syndicat yi parce que dañuy nekk climat social bu baax ñu nag direction général ak autorité yi tey loolu lañ war a fexe ba gën koo dëggal gën koo yokk mais nekkul ñuy doon polémique se lool yaakaar naa day yàq par exemple climat tey pour ñëwaat si ministre lu mu wax mooy tey suy neewee rek bëgg nee charge lii ak lii rek moom moo tax lii am donc loolu ay interprétation rek lay créer parce que ñun en tant que travailleur lool mun ñu ko nangu parce que gis nañu ñun charge yi ñuy wax yi ñun travailleur charge yi def yi ñun néew na tellement dafa péeri néew ba ñun lu ñuy tuddee sa norme standard bi sax sori nañ ko lool tey su ñu doon méngale sax ay ñu mel ni Côte ak yeneen yenn sociétés yenn yu nekk su région bi wax dëgg yàlla ñooñu dañuy raw lool. moo tax tey na Senelec tey suñ ko néewul jaajëf par exemple ñu gën koo gën a encouragé war ñu fexe nag di créer leen nga xam day gën a yàgg dynamique bi c'est tey su ne fonctionnement bi rek tey rien que pour créer rek kilo kilowatt rek lay wax fonctionnement bi rek pour production bi ñoo ngi toll presque ay quatre vingt six pour cent loolu déjà courant mi ngi koy defee moo cher. tey waxtaan bi yëpp bu ñu war a def mooy fexe nan la ñuy fexe ba courant ni ñu koy defaree mu yomb tey loolu moom moo taxoon ñun sax ñun dañuy ne woon fexe ba def assise de l' de de de de l' énergie c' est loolu si première mai lañ ko wax mais ñun loolu lañ doon xaar si gouvernement bi mu jéem ñu fexe invité ñu ñëw jàppale ñu pour que assise de l' électricité nga xam acteurs yëpp dinañ si ne mooy ñu liggéey si biir Senelec ñeneen ñu nekk ay acteurs si biir énergie bi muy waa gouvernement bi muy tamit consommateurs yi parce que tamit ñoom parti lañu intégrante parce que mun ñu def sans ñoom pour que jafe-jafe yu am ak nan la ñuy mën a trouver ay solution pour que courant bu ñu créer tey actuellement mu gën a yomb ak nan lañu koy defee. tey ñun loolu lañ doon xaar c'est tamit ñoo ngi rafetlu en même temps démb génn mooy suñu ministre de tutelle bu mu génnee tamit ñoom li ñu wax mooy am na leen mooy compensation mooy subvention nan la ñuy fexe ba gën koo rationaliser xool yenn niche yi mën a wàññi ak yooyu nan lañ ko mën a defee ba duñ si lor askan bi loolu ñun si foofu lañu bëgg debaa bi ne mais débat duñu ne kii la kële la kële la loolu ko wax da ngay wax tey Sénélec tamit ma delluwaat di waxaat si côté Sénélec Sénélec day société nationale heure bu direct kii président su demee ba jël décret noome directeur général day ñëw dañ ko may objectif yi ñu ko wax nee na lii ak lii li ngay def loolu il est obligé mu respecter si am nañ code des marchés contrat si koy def am na code des marchés ñun koy lenn la ñu dañ yàgg waa en tant que syndicat nan la ñuy fexe ba contrat yi ak yooyu nan la ñuy fexe ba mu gën a baax niñ koy defee mooy bon gouvernance bi nan la ñuy fexe ba gën a def une bonne gouvernance à la Sénélec ak gestion bi nan lañ mën a def ba ñu mais loolu yëpp soo seetloo dañu am ay normes te dañ ko obligé ñu respecté ko lenn nag moo am Senelec tamit loolu tamit loolu dañuy ñaan ñu bañ a nekkati toujours si ay situation d' urgence loolu bindaan nañ ko d' urgence mooy chaque fois urgence su amee léegi doo nekk di def ay appel d'offre loolu lenn rek ngay def mooy da ngay fexe rek nga def entente direct kenn ku ñëw pour nga régler ko c'est loolu comme tubaab la ñuy wax ay mesures conjoncturelles rek la ñuy jël privilégié ko si ay mesures structurelles loolu moom mooy jafe-jafe Senelec so loolu yaakaar naa gouvernement bi ak waa kii Senelec moo njiitu Senelec si fexee ñu toog ñu déggoo ba nekkatuñu situation d'urgence problème yëpp day réglé wu si am na des cours de contrôle ñëw à chaque fois mën na ñëw nemmee ko xool ndax lii rek respecté ko mais ñun nag suñu rôle tuuti dañ koy joué chaque fois dinañ artu di wax di suñu rôle dal leen dafay ñun loolu dañ koy def ñu loolu lañu ñuy xaar pratiquement gouvernement bi mais bëggatuñu par exemple nga génn soo waxee ñun il faut ñu tontu te loolu day créer rek ay situation de polémique moom moo taxoon il fallait que ñu indi rectifier pour ne waa ji lu mu wax li si lan la si jublu ak lan la ñu nar peut-être est-ce que nekk sax ab manipulation moo nekk sax titre kii bi noonu loolu moo tax ñoo ngi wooteewaat mooy kilifa yi. ak muy acteur du secteur muy suñu direction générale ñun ñëpp ensemble nan la ñuy fexe ñu déggoo pour que Sénégal lu ñu xaar si ñun ñu matal ko muy courant ba courant bu yomb mais nekkul fii ñuy toog di wax di polémiquer parce que régime bu bees lu wax dafa ne dañuy changé doxalin. Mm-hmm. donc ñëpp nañ leen fekk si loolu pour que ñu def mais nag ministre bi nay fexe kilifa la heure buy génn di wax na xool nan lay waxee ak yan kaddu lay génne c'est kàddu quelquefois mun na am yenn kaddu yu muy def loolu du defar kooku day gën a yàq di gën a fóoloo mooy acteurs yi ñun loolu rek la ñu amoon pour que au moins ñu indi quelque tuuti précision pour que recadrer waat tuuti ministre yi pour ëllëg su génnee muy wax na xam par exemple moom moo yor porte parole du gouvernement lépp lu mu wax rek mën na nekk sujet interprétation si interprétation ku nekk am na nu mu gise se lool la créer biir Sénélec actuellement du ñun rek mais yeneen syndicats yi ak yeneen acteur si biir Sénélec ñooñu tey gisalin boobu la am mooy tey créé na débat biir Sénélec tey calmer mooy loolu tey actuellement mooy wax bi pour que Sénélec calmer waat pour que vraiment ñu mën a continuer si situation muy nekkoon mooy climat social bu apaisé. ñëpp kenn déggatuñu woon jàmm am si Sénélec ñu liggéey mën a jox Sénégalais yi mooy courant bu ñu bëgg bu dul am ay ay ay coupure moom amatul léegi en même temps tamit courant bu yokk. Mm-hmm. mais aussi nga gis ne Alassane Ba souvent consommateurs yi ñu ngi jooy facturation woyofal bi tout le temps tout temps war ngeen léegi oyofal bi cher na cher boo xam ni sax nañu changé tur bi tuddal ko diisal. <laughs> léegi loolu ñun tamit si population bi la ñu bokk. wax dëgg yàlla courant dafa cher. sànq wax naa ko bu may tàmbalee wax nee naa courant nuñ koy produire vraiment dafa cher ba état bi si boppam da ciy def loxoom. courant si boppam ni ñu koy defaree moo cher tey du ma dugg di wax par exemple nii ak nii la ñun dañuy wax assise de l' électricité assise bi dañ koy ubbil autorités yi dañuy ñëw. mooy acteur du secteur mooy direction général day ñëw ñun travailleur dañuy ñëw ak yeneen acteurs yu nekk ci biir secteur de l'énergie day ñëw et en même temps bañ a fàtte population bi mooy surtout mooy kuréel consommateurs yi ñoom si ñëwee ñun ñëpp ñu waxtaan suñ génnee boobu si lël boobu mooy ay solution day am solution yooyu suñ ko defee ñu def ko muy benn document ñu jébbal ko état bi parce que état bi mooy régime bu bees moo ñëw moo xool ay piste de solution nan la ñuy fexe ba courant yomb ñun dina indi suñu apport si loolu c'est yaakaar naa ñun ñëpp muy que ça soit yi muy waa Sénélec muy état bi ñu ñoo war lëkkaloo ñu xool nan la ñu mën a fexe ba affaire courant yomb. d'accord kon daal jàpp nga ni assises yi fi ñu toll nii moom foog état bi amal ko pour ñu am solution si affaire courant bi nekk na lu ah, lu ngeen ngeen bëgg daal. waaw loolu rek lay mën a def bañ ñuy def à presse interposée kii wax fii kii wax fa loolu problème du mës a wu. Euh, problème suñ koy réglé mooy il faut ñu ñu ñu ñu ñëpp ku nekk consciente situation bu sénégalais di vivre mm-hmm. ñu toogandoo. ñun ñëpp ñu gëstandoo xalaatandoo ba suñu gis-gis suñu suñu suñu réflexion yëpp méngoo foofu lañu mën a trouver ay piste de solution mais du kii génn rajo tey kii génn fële kii génn fële déedéet day créer polémique c'est Sénégal yaakaar naa sonn nañu lool c'est mérité wuñu waaw euh, dernière question peut-être ñu gis ni sànq sax yaa ngi junj naan coupure amatul mais sénégalais au contraire dañu nemmeeku depuis quelque temps euh, coupure yi dafa dafa tàmbaliwaat loolu lu koy expliquer Alassane euh, tey dama leen di mën a dama leen di mën a rassurer hmm. en tant que syndicat syndicat ñu day fi nekkal muy travail nekkal fi askan bi damay ñëw wax mooy di leeral pour que courant léegi manqueetul courant bu ñuy togg courant wax dëgg yàlla doy na c'est tey bu leen fàtte tamit si nawet la ne su tawee ay poto mën nañu daanu Soudan am na question de sécurité mais en même temps te mën am ay jafe-jafe mooy interruption de service mooy foofu su amee ay panne force mu am coupure foofu ñëw ñëw nag ab kii pour que ñu régler waat ko pour joxaat sénégalais mais actuellement kenn mënagul wax délestage parce que actuellement délestage amul mooy pour que sénégalais xam courant bi doy na foofu moom dañ leen rassuré mooy période nawet la ñu ne c'est ku ne nawet di wax ay ngelaw di wax ay ndox yooyu yëpp day impacté ak si tamit mooy si fourniture électricité bi mais dañ leen rassuré rek courant doy na am nañ une électricité vraiment de qualité am nañ ko waaw loolu moom damay rassurer sénégalais yi si nawet la ñu nekk rek mooy ay quelques panne la ces panne yooyu tamit am na équipe nga xam fu mu amee rek aussi aussitôt dañ si ne nu mu gën a gaawee pour ñu rétablir pour que sénégalais vraiment ñu priver leen courant. voilà kon euh, Assane Ba ñu ngi lay remercier bu baax a baax Alassane. waaw maa ngi leen di fay. maa ngi leen fay merci. may fàttali ni Alassane Ba yow yaa jiite syndicat unique des travailleurs de l'énergie jërëjëf ci sa disponibilité. merci.